salaamaaleykum waa maîtresse d'un homme marié maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare mais kontaan naa ci maîtresse euh, bi passé lundi vendredi bi vendredi bi kontaan naa si neex na jeu bi neex na torop mais Marème ñu ngi lay remercier eh, waaye nag da nga xam ne lan la moo la gën a pànk lan la newoon na bés ma duggee say 18 di nga xam ne du jàkkaarloo nga gaynde mais xam nga ne lan la moo la gën a pànk moo la gën a pànk foofu mais baax na nee naa woon kat mu ngi doon démissionné si loolu aawo yi biñ ko jox mais mi ngi commencé siggil aawo yi mi ngi commencé siggil aawo yi bu baax a baax ah, waaw mais Jalika itam kontaan naa ci moom trop kontaan naa ci Jalika ndax kat jigéen benn yoon ngay am métti ci néegu sëy nga génn ci bëgg ci duggaat day métti trop day métti trop bañal ba tëdd Jalika ci li nga nekk sa loolu la sa droit la joué ko neex yow kese yaa ko moom. mais kontaan ne man nag moom sama fans yi moom mooy Racky ak euh, Tafa Racky ak Tafa moom kontaan naa si ñoom trop wax dëgg ne yàlla ñooñ moom sama yeboon ne ñoom ñoo gën a tax sax may suivre théâtre bi lu mu gën a neexee moo tax may suivre théâtre bi parce que doon na mari maîtresse doon na marié ak Lalla Jalika waaw biram moom mooy loolu biram moom mi ngi noonu rek kenn xamul fan la féete biram moom kenn xamul fan la féete mère Diagne itam nag mère Diagne moom du wekki mook day daaj rek mère Diagne moom du wekki mook day daaj rek moom moom day daaj mi gën a dugg rek moom moo nekk ci kër gi daaj mi gën a dugg yaakaaroon naa ne ay goro booleen leen ci kër gi même bu dee kenn nga gën a bëgg dangay ngay lii rek masta yaa waaye moom moom tey jéng bu nga xam ne wuu ni mu jéngee sax daa ëpp mais baax na siyaare naa leen lu bare bare bari dama kontaanoon ci juillet bi rek moo tax ma ne naa woote participer si remercier leen lu baa lu bare bare bari mais baax na kontaan naa trop. asalaamualeykum waa Lu Xew TV ah, maa ngi wootee from Gambie. man nag dama dee seetaan seen series bi in on uh, TFM uh, dama bugg a comment nag dama bugg comment tuuti si series bi because lu ma gis mooy si diggante Racky ak xale bu góor bi ñu ngi wone ne pour xale yu jigéen yi ak xale yu góor yu understand ne soo amee problème nga daw jóge sa këri ndey ak sa këri baay nga dem si sa xarit bu góor ki nga xam ne daf la bugga taxut ne danga nga bon because raaki foofu defu fa dara loo xam ne lu bon la te xale bu góor bi tam Moustapha ku baax la dafa moom itam dafa wone yëfi gentleman wone na ne xale bu góor su buggee mun na laa xaar ba bés bu mu la takkee bu waruta amaa yow jëflante yow dara ñu ñëw nag si Mariam Mariam moom moom from the onset tooñkat la Mariam di fag ne enu nañ ko dugal ko si ne këri laa la mu dem di tëddaa jëkkëram loolu rek dafa ñaaw ñu ne deetawaay mu ñëwati ñu takk ko indi ko ci kër gi mu door di tappaas laa la di tapaas laa la ba soona mënu ko am mu dem si doomam bi di ko xas te nag kuñ xas koo tiim doomam di ko xas naan ko yow yaruñ la yow saaguloo xale bi de yaay bi ci boppam ngay saaga understand nga waaye with all that laala mu ngi uh, keep calm mu ngi ignore Mariam mu ngi toppatoo soxlaam te Mariam nag lu xew laa series bi nii loolu jàngat la pour lifin xale yi xale yu jigéen yëpp because xale yu jigéen yu dem luwe seen néegi boppa dikkal seen boppa di def foofu lu leen neex mel nu leen neex amuñ benn kilifa amuñ kenn ku leen wax dara soo ñoom lu leen neex rek ñu def soo laala uh, fu mu nii mariyam Uh, lu ko xaw ma how do you call it uh, liyam passé moo nekk di ko hunt right now moo nekk di ko di ko toppa soo loolu xale jigéen yëpp war nañ see jànga ndaxte jigéen yaay la te jigéen mooy jur ëllëg soo moo tax soo nekkee xale bu jigéen danga war a respect sa boppa nga di seen waruloo dugga si yoo xam ne ëllëg si biir suñ la ko waxee dina la gàcceel wala di nga rus pour ne ñun yaay dañ war a dimbale suñ doom yi pour ëllëga si biir def fi loo xam ne ëllëga si biir kenn bu mu si mun a xase suñ njaboot bi parce que nga juddu ba màgga te waxuñ la ne sa ndeya fi defoon lii rek loolu sens bu rëy la laala mariyam nag lii uh, it's just the beginning uh, dara gisaangu dara sax lii dina yar xale yu jigéen yu bari dina leen ee ba nga xam ne dinañ mun a toog téye seen boppam maandu xaar seen jëkkër yi dem di def yenn yoo xam ne yow soo xamee ne dara soo ko defee doo ñemeñ mu ñëw si public bi ñëpp xam ne kii lii la defoon waaye waaye would you do it in the first place waruloo ko def waruloo soo fu mu nekk nii def na ko te ñële mun nañ ko use against moom man mii sax su doon man la dama doon use loolu against moom mu génn kër gi because Mariam lu ko gënal tey mu génnee laala si kër gi te laala tamit sëy sëy bu rafet lam fa sëy soo Mariam. Euh, mënut a ñëw foofu noonu leen ak jikkoom ak melukaanam ma gis ñëpp di ko support naan Mariam dafa war a de defante dafa war a dee man daal yëfi see yëfi wujje gisuma si defante de lu ma si gis mooy mind your business ku nekk nga gérer sa site waaye di ñëw di xëppante asib di tooñ loolu tooñ na a lady wouldn't do that ma ne ko eh, lady shouldn't do that so waaye mu war a ñëw ñu ko puus naan Mariam dafa ñëw sëy si dafa ñëw teg gis ngeen Mariam naka la duggee si kër gi moom a laala jaama du musa nekk seen diggante simply laala dafa xam yu bari gis mariyam naka la duggee si biir këram bi ak naka la miinee biir néegam soo loolu moom jigéen buñ ko def rek kooku noonu la moo mun a nekk si si yow ba abadaan man nag awo laa te awee rek laay support bem bem jeex tàkk waaw lu laala def rek neex na ma ok. ah salaamaaleykum waa Marodi TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di ñaan sama ojo bi fekk leen yéen ñëpp si jàmm ah film bi neex na film bi neex na épisode yi passé yëpp seetaan naa ko waaye sama téléphone bi moo bañoon mënuma woon dugg participer daal neex na lool neex na lool waaye mareem na moom ah mareem doy na waar de tey moom sa xarit bi moom déconné na déconné na trop trop trop sax. yéeme na waaye na yàlla baax na yow daal jàppal fi nga jàpp rek te laala woo na la ci jàmm wuy su ko ci jàmm ngeen nekk benn daal ah waaye na laala man ba léegi doyuma de woo na la ci jàmm da waaye baadu ay pexem ay palaam la lal doy na waar daal doy na waar waaye na yàlla baax na ma ñëw na ci rakki rakkitam na baal yaayam rek xam ne yaay moom nu mu mën a mel yaay la su baaxee yaay la su bonee yaay la na ko comprendre rek waaw te baal ko te xam ne moom rëccu na daal lu baree bare mer bi rëccu na ko waaye gërëm naa leen yéen ñëpp kontaan naa ci film bi neex na gërëm naa leen yéen ñëpp maa ngi leen di siyaare jërë ngeen jëf. waaw salaam salaam lu xew TV nuyu naa leen yéen ñëpp si lu ngeen nekk mbàyyi nañ si jàmm man ñu ngi rafetlu liggéey baax a baax a baax waaw vraiment nag euh, épisode 47 neex na neex na lool macha allah ci li may jëkk a ñëw mooy si Jalika Jalika yërëm naa ko. parce que dafay dund lu métti instant bi parce que bëri na Sénégal jigéen ñoo xamante ne bii sëy nañ ba tas alors nu ñu seen jëkkër ñoo bon ba bàyyi leen wala ñuy jund yenn situation yu metti yi entre ñoom seen jëkkër wala ak seeni goro wala famille beeg yooyu noonu dem ba am ci léegi nag alors que ku dégg ne kii da doon rek wala dafa nekkoon ci buumu sëy am xam nga divorcé na am na fa ñaari doom am na fa benn doom am na fa ñetti doom rek xam nga ñu ne baaxul wala yu mel noonu alors ko du loolu dinaan ñax gu wow mooy lakk gu tooy xam nga moo nekk si biir rek mais vraiment yéene naa ko Jalika yéene naa ko borom kër bu baax comme comme copain bi di ko doxaan nii quoi yéene naa ko trop trop copain bi tamit euh, xam nga ku yaru la xam nga loolu dafa raar si jamono ji jamono ji xam nga copain bi dafa yaru dafa baax quoi parce que boo gisee ne mi muy réagir diggante entre moom ak Jalika rek nga xam ne bëgg na ko mais nag lépp rek comme la ñuy wax rek ñax gu woo dafay lakk gu tooy quoi. te ñëpp yemuñu maire bi na xam ne xam nga euh, jalikaadu façon jigéen yooyu noonu waaw na accepté ndaw si quoi voilà entre li si topp tamit aussi mooy ma dem si euh, ki nga xam ne mooy Marème tey dafa daanu Marème bi mu ñëwee si kër gi fekk euh, ke toog bu jëm bi toog rek warul woon même bu nuyoo dafa waroon continuer xam nga warul woon fekk ñëw rek mu toog rek xam nga mu ñëw di dugg di leen nuyu affaire yooyu commencé masla donte xam nga woo na ko ci jàmm tamit warul woon ñëw rek comme fekk na ñoom ñaan ñu toog rek xam nañ ne am na waroon na waroon naa comprendre ne am na kàmbu ndëgg sërëx guñ ko lalal daal ñu ma la ko mën a waxee am na luñ ko lalal te xam nga loolu moo am même biñ ko waxee turu copain bi warul woon xëm dafa waroon a continuer na xawuma ko parce que ni mu doon defandee noonu la waroon continuer fi mu jàppoon ne xaw ma xaw ma rek noonu la waroon def mu continuer mais vraiment tey moom xam nga <laughs> awa yi daal teg nañ tànk daal seen dil daal moo ngi bëgg a mat li bi naan dañuy gagné daal nuru na ne daal euh, boo repee victoire bi dina féete ji ñoom waaw na xam na na na am courage te xam ne xam nga lii nii am na nu muy def rek mën na ci génn kenn mën koo bañ a xamal mais nag am na nu muy def tamit ñu xam ne yaa quelque chose quoi waaw Marème daal tey moom tey daal moom ni nga def daal moom du noonu daal daanu nga vraiment daal ñu ngi leen di jaajëfal nag waa Lu Xew TV yéen ñëpp di leen sant bu baax di rafetlu liggéey bi tamit bu baax jërë ngeen jëf. ah yéen waa météo siyaar naa leen bëgg naa leen bu baax maa ngi jégalu na ci a dugg gi trop maa ah. série bi neex na neex na trop macha allah waaw Mariam li ma ko doon wax rek li ma leen doon wax mook laala yëpp xarit moom jëru wut ci sëy jëru ci wut xamoon naa ni fa ñu mujje mooy loolu sa am saa ko def waaw mi ngi ko doon jaay sincère fekk na booba lim yàq ci moom moos moo ëpp lim koy defaral gis nga ko def waaw jigéen ñi ci boppam dañoo war yeewu léegi si xarit amatut xarit dëgg amatut waaw àndandoo rek moo am mu tax am na si yu bari yoo xam ne yaa ko war a dencal sa bopp mais du looy joxe waaw beneen kaa bi maa ngi ñëwaat ci biram biram man mu war a xam ci mair bi daal man ba ak keeni àddunaam yàqu na biram gis meer bi rek commencé bi ñaaru man daal affaire boobu jaaxal na wat torop jërëm moom daa li xew wala meer bee ko jur walla qu'est-ce sa se passe ah jaaxal na ma de meer bi de jur il fi jaaxal na ma lool ah man de lu mu war a xam ba mu tax mu feebar noonu jaaxal na beneen bi maa ngi ñëwaat ci lal lalla moom ah de mi ngi xeex nag fi mu nii moom liñ naan dóor fayu fayu na nag mi ngi fayu fayu bàyyi ëpp bëgg ëpp nag ndax dina tas sëyu Marème bi kat su da arrêté lii muy lii bii moom bu ko arrêté wul moom sëy bu Marème bi dina tas li mu waxoon dina am dina toog ci këram moom doon ah yëf yi jeex yéeme na day waa trop ah ab sëy rek na lii di weeranteeka génne ñaaw téefi nit geeg lu nekk lu ko fi jar ci benn góor rekk yéeme na nit ñi daa seetatuñ léegi ëllëg tey rek lañuy gis léegi su mareem tasee ak ak ak su mareem tasee ak léegi moom nan lay def mu toog ci këram nit toog moom kese léegi mën na dajawaat ak ku gën piir mareem bi ah Lalla war na jouer sóoraale loolu de mën naa daje ku gën a piir Marème tam Marème jàmm salaam dong lay wër ci moom kon nag mënoon nañoo ànd ci jàmm salaam boobu moo gën a rafet waaye nii muy def moom ñaaw na trop ñaaw na rafet du ma ko moom Lalla li def rafet du ma ko dóor fay waaye nag am na yoo xamante ne nii kenn du ko fayantoo waaw lu moo ngi nii ba mu demee kër mère Diagne daf doon kalaame ji mare ba mu demee gis say takkaayam lu mu wax duma ko ŋaaŋ na mu muñee loolu nag war na ko di xaar ni mu koy réglé ci meneen façon wam mënoon na koo defee neenu nag te bañ a tas sëy bi nag mënoon naa ba ñu jóge ci moom waaw neex na trop nag li ngeen di jugee am na solo trop macha allah lépp a ngi ci biir kër yi lépp li ngeen di jugee rek mi ci biir kër yi waaw am na fi am paggaay di sa sa sa wujju ñëw toog ne faax fekk sa awa déjjëti ko baa sa a nga ñëw mu déjjëti la moom toog lépp fi nekk ci kër yi ngeen di joué lépp am waaw nag moom ba mu xamee ni réglé wut am na fu mu jaar am na trace boobu la toog ba seex Diagne fekk ko këram def le war ci moom takk ko bu boobaa kenn du ko mën a xas waaye comme que moo raxas tànkam bi ba mu set ku seex ne mu luqati ju ko dem ci këram di di di di jàllax di ko ba ci sàmbraaku sa jabaram di fa def seex lu ko neex lu mu am tey rek na xam ne añu añam la waaw añam la de waaw moo joxe woon dépasse bi de añ bi lañ ko yàkkal na jël lépp nag nga xam nu mu koy réglé nekk leen si jàmm nag kontaan naa ci yéen trop li ngeen di def macha allah. asalaamaaleykum série maîtrise homme de marie man maa ngi leen nuyu bu baax seen benn soppe bu nekk fii Italie maa ngi leen nuyu bu baax baax di leen di siyaare di leen di ndokkeel di wax ne série bi am na solo lool épisode 47 bi am na solo lool mais nag euh, lépp ci kaw njàngat la euh, ñu ngi kontaan bu baax a baax ci série bi daal ci ni doxee di ci am bu baax baax ñu ngi koy seetaan bu baax baax mu dinu yedd Euh, mu di nu yar di nu jàngal daal di jàngal di ñu jàngal àdduna bu baax a baax di ñu jàngal ci wàllu si ci lu bari bari di ñu dolli xam-xam ba tax na série bi ah vraiment Mariam am na ci problème euh, Mariam am na ci problème ba tax na jigéen lu muy defit war lu mu yàgg-yàgg war na caa sedd leen ndax waxit boo ko waxee lu mu yàgg-yàgg wala def wala leneen lu mu yàgg-yàgg rek na la wóor na day feeñ na la wóor dey day mas a feeñ ba tax na nit lépp lu muy defit war na koo xool ba na Marème xañ na ni mu nekk woon waa ji ak fu mu mën a nekk moom fi ñu toll waa ji moom ab siyam yàqu la bëgg ca Marème fi ñu toll mi ngi doog a jàpp ab siyam ba tax na am na ci loo xam ne si kenn mënu koo siyaale jigéen tim ah ñun jamono yi léegi jiitim li nga gis nit ñi daanaka dund tubaab la ñuy dund ndax dem na ba ndaw si sax mooy commandé jigéen bu demee ba nga xam ne si mooy am ordal di la dóor pes di la def leen lu ci nekk kon nag dem nañ ba nga xam ne si léegi jigéen jigéen ñi ñoom ñooy ñoom ñooy commandé daal waaw jigéen na bu demee bay commandé nag xam nga day xaw a metti lool ci góor gi ci góor gu dem ba am ñaari jabar moom na la wóor ne yow yaa war a commandé mais jigéen waratu laa commandé mais maram ci am na problème lool ba tax na am na problème ci seex am problème ci siyam ak ci xaritam bi am sa moo tax xarit lu metti metti metti metti metti na nga ko wax lépp mais nag la ca digg la la ca digg ba la ak la xóot xóot ak la xam ne si dafa sori ci yow sa xol it na ko denc ndax daanaka boo gisee net liy bareeg yow yi ci bari xar yi rek ñoo koy def ndax xar rek moo lay xamal ah, day dem wax ci keneen ne ko bu ko bu ko keneen dégg demaat waxaat ci keneen nekk ko bu ko wax keneen loolu mooy siiwal mooy siiwal lu ci bare bare bari te daanaka net li doo fekk ab jaamul nga nettali ko sa mbokk wala sa xarit rek ngay nettali ba tax na ni dencal ñu bari seen secret bari na ci secret ko ak yoo yoo xam ne si da wër na de bi lépp ci xarit rek lay jógee ah, nit yi nag am na loo xam ne si ci sab xol nga ko war a def waroo ko wax kenn waroo ko wax kenn ci àdduna ah, ba tax na ñu ngi leen biramtum vraiment am na problème moom it ah, di wax ne daal sëriñ am na solo lool am na solo lool jaxasoo na daal ba tax na loolu rek lañ ci war a wax ok nekk leen ci jàmm jaajëf kontaan na bon salaamaaleykum euh, bay seetaan série bi mais diggante Racky ak Tafa man moi man dama leen bëgg tellement ko bu ñu defee dara sax parfois damay damay xaw a mer parce que série bi ki koy bind am na yenn faute yu bëri yoo xamante ci entre diggante Tafa ak euh, Racky dañ koy joué te dafa des. parce que Tapha ak Aki dañoo dañoo xuloo woon man seen xuloo bi man gisuma juboo de un deuxièmement parfois Racky buy wax dafay des lu bëri lu bëri lu bëri da ciy des parce que day wax ba pare am loo xamante ni nii day lay leer ne lii manqué na pour mu yeggali phrase bi kii bind affaire yi daal war naa gën a mën a defaat mu mu gën a safal entre diggante Tafa ak parce que foofu moom des na lu bëri bëri bëri bëri bëri waaw. allo salaamaaleykum waa Lu Xew TV ñu ngi leen di ziar di nuyu ñëpp voilà mm. ah, yeex bi moom démb bi metti na de i neex na trop trop trop mais metti na trop nag waaw fu dëgg yàlla. Marème moom tegal nañ ko ban fu dëgg yàlla cey doy na waar daal doy na waar démb daal li ngeen jàngat jàngale li ngeen wane daal lépp lépp lépp lu am la li yëpp day wane na rek looy def rek ah na nga sóoraale ëllëg looy def tey rek da nga ñeme ka euh, bàyyil xel na ëllëg am na loolu daal Marème mhm. Euh, bu fekkee am saade loolu la def a ah, doy na waar daal metti na de waaw xarit nag am na mais comme euh, li am saa daal ah peut-être nag ah, am na de waaye nag ku yebu rek daal moytu waaw moytu bu baax a baax a baax waaw ku yebu daal boo amee ay doom nga xaritoo say doom ah sa yaay waaw wala sa jëkkër wala say say rakk wala say mag parce que lu si am it yéen ak neen la la famille la du la metti mais lii bu la ko jàmbat defee jàmbur defee ah ana yow ana man rek ngeen xaritoo si ni am kóllëre rek mu def la lii day metti de waaw rey na gor yu bari nag dëgg yàlla te it ñu ñaawlu ku am ku intention boobu di ko def ah bu yeboo daal nga nga bàyyi ko yéen daal waa maîtresse ah ñeen ñu ngi leen di ñu ngi leen di remercier de parce que message yi ngeen di jàllale ni jàllale nii ñu dañ si war a jàngat daal waaw si jamono yi tey ji surtout ma li jëm si internet yii nii ay envoyé vidéo yii nii baaxul voilà baaxul dañ koy jëlee par les airs ah partager partager baaxul mu ngi noonu nag léegi moom partager naka jox ko kële kee mu ngi ni yaakaar ne àddina kii man de bu ma doon mareem foofu duma fa taxaw dem naa sama yoon. wallahi bàyyi làlla ak këram te xam ne loolu la yàlla dogal na yàq nañ àddinaam hmm? mu ngi noonu xam nga rek gis nga mère Dia ñu ngi liggéey def si zaahir ak baatin mais gis nga nit bu crise sa àddina ku sedd rek gis mu ngi noonu ñoom laal seet nañu xaritam bi seet nañu gis nañu léegi mu ngi noonu yàquñu àddinaam ah lii moo gën sax yóbbu la sëriñ <laughs> parce que metti na metti na trop daal fa dëgg yàlla waaw man moom que ce soit Lalla ou ou Marème man maa ngi ci ñaari côté yëpp parce que lépp dañuy yeete rek waaw lépp benn la que ce soit aawa ak ñaareel on reste des sénégalais on reste des musulmans ñu am xolu yormande di baale di jéggale mu ngi noonu daal doy na waar daal man man kaawu biram bi nag li mu def noonu xaw ma ku mu fiir mais day na da biram daal saa bu bu ñu xëyee rek <laughs> biram daal <laughs> biram di def ay tooxi doone rek day na waar daal waaw waaw mais macha allah ñu ngi leen di remercier euh, maa ngi bañ a guddal et puis euh, yal na leen yàlla may euh, nuñ koy waxatee daal ngeen gën a di xalaat daal si lii li ngeen def daal man maa lañ ci ñaanal daal yàlla yàlla jàppale leen si ngeen am si bonne réussite parce que un homme maîtresse lii démb li ngeen def moom lu bari lay jàngatle xëy na dina laal sa xol yu bari mais baax na. noonu la parce que di naan paaka lu mu daas daas du du du tere ñu ñu làmbaat ko ñu ñëwaat ko waaw mi ngi noonu daal mais macha allah ma leen di ñaanal et bonne continuation et merci. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV nuyu naa leen yéen ñëpp ku ci ne sa tur ak sa sant ah, ma bëggoon a participer tuuti ci théâtre bi maîtresse bi ah, dinaa ne kontaan naa trop ndax. lu ñuy joué lu déggu la ba pare am na tamit ci loo xamante ne ñu ngi koy dund ci siñ société bi ah, ba pare di naan um, lalla li nga def loolu la ndax wujju lu dara bokkuwul seg dong la mais xam nga rek may dégg ñeneen ñi tamit di naan ne um, lan moo tax ñuy du ñun sénégalais yi duñu gis koo xamante ne mu ngi dëkk ak jëkkëram ñu nekk benn te dugguñu ci xam nga euh, lu ma bëggoon a wax ci sama xalaat mooy ne ndax ñun ñëpp julit lañ te foog naa ne euh, Marème deful dara li nga xamante ne comme loo xamante ne suñu diine da koo bañ comme ñëw fekk la la kiram seyal Seex Seex Njaañ xam nga parce que Seex Njaañ jullit la ba pare daa war a am jabar ba ñeneent bu takkul woon marraine sax te mu bëggoon keneen ku dul marraine dina ko takk teg ko ci kaw lal la te bu gisatee keneen dina ko takk def ko ñetteel bu dee bëgg na ko bu gisatee keneen dina ko takk def ko ñeneenteel kon nag ah, lal la acceptel marraine rek moo moo moo man daal noonu laa ko gisee xam nga ba pare tamit ah, loolu noonu luñ bëgg a yëkkati yëkkati noonu mooy ay ay paasi marraine xam nga loolu paaseem la. ci tey la ñu nekk man bu ma doon jëkkëri Marème dinaa leen woon ne loolu paaseem la ndax ku nekk ci àdduna bi am nga paase ku nekk am nga paase Marème xëj na amul woon jëkkër moo tax mu doon mu doon mu doon nekkantu xam nga di defantu ay photo xam nga mais tey bu mu demee ba am jëkkër Marème regle na te ñëpp xam nañ ne Marème bëgg na sey te bëgg na Cheikh Diagne ñëpp xam nañ loolu mu ngi regle bu mu sëyee ba tey kenn gisu ko muy taxawaalu ci mbeeda kon fonk na sëyam kon na Cheikh Diagne moo war a faxas ay noppam mu xam ne Marème bëgg na ko te sëyal na ko ki ki sëy bu rafet xam nga mu won leen ne lii passé Marème la ci tey la ñu nekk démb ak barki démb loolu passé na xam nga man daal loolu moo doonoon sama xalaat tamit ak Jalika sama xarit bi sama fans bi ma lay naan ne nanga jën a góor góorlu rek xale bu góor bi bëgg na la man de bu ma doon yow nga sëyal ko rek te yàlla tax te waxi yaayam ak waxi tàntam nga bañ koo déglu xam nga yow jàmbaar nga yal na la yàlla lafal cet merci Absa Absa yow daal moom mere naa la lool lool lool lool daal bu yeboo nga bàyyi xarit xarit daal moo fi jeex xarit moo amatul ci suñ société buñ nekk nii merci à tout le monde